projet bi moom <laughs> euh, dafa dugg rek ci cadre projet Macky bi nga xam ne mooy fexe ba terroriser askan bi yëpp ba kenn dootul ñeme wax euh, pour mun a dérouler li nga xam ne mooy mbébétam te mbébét bi du troisième mandat rek waaye mooy mandat à vie mooy mu toog ci réew mi ak moom ak ji ko ngemb ba nga xam ne kenn doon ko fi mun a jëjjiti lii def cee dugg fekk si yeneen yoo xam ne bi ñu jógee ci mois de mars bi nga xam ne euh, askan wi won na ko ni moom moomul réew mi mu jàpp wala mu jàngat ci jàngat yi mu war a jàngat mooy lañuy xaar ci moom mooy mu toppatoo euh, euh, coonoy askan wi mu saafaral jàngoro askan wi waaye xaaruñ ci moom mu nekk ci nappaate ak pexeel opposant yi li askan wi doon xaar ci moom mooy jox nañ ko ñaari mandat mu waroon doon gor ndax boo dëkkee cim réew réew mi mat 16 millions d'habitants 16 millions d'habitants yooyu ñaata ñoo ci mës a mës a nekk président la république ñaata ñoo ci mës a nekk rek sax ministre wala directeur général yow yàlla may la nga bokk ci 16 millions yi ku ku ci mën a nekk président charte réew mi ne ci ñaari mandat la mën a nekk bu mandat yi jeexee na nga dem sa yoon ñu jox la loolu ba mu jeex nga ne duma dem damay toogaat def beneen mandat askan ne loolu mënuñu koo nangu nga ne dinaa ko def par looloo indi li ñu gisoon yëpp ba mu ci génnee ole mu am ci jàngat ni lañuy ñuy xaar ci moom mooy ñaari at ak genn wàll yi ko desee na ko rafetal réew mi am jàmm am dal am tey te mu góorgóorlu nag jublu ci liggéey ba sénégalais yi seen jàngoro wàññeeku ndaw ñi am liggéey jigéen ñi seen coono wàññeeku liggéeykat yëpp mën a am naataange ci seen liggéey loolu lañu yaa yaakaaroon ni moom la gis waaye gis nañu safaan wala moom ci génne njàggan bi mooy te ñi mu àndal ñëpp di ko mooy dafa jàpp ni li fi xew dañ koo bettoon rek kon na defarwaat defaru gi nag mooy bu njëkk mooy naa dem recruter ay policiers ak gendarme yu bëri tey nee nañu mille la ci police mille la ci gendarmerie bu loolu weesoo jàpp fan ñi jiite woon police bi ak gendarmerie bi li ma bëggoon ci ñoom amu ko mu jëlee leen fi daa di andi ñoo xam ne yaakaar na ni su leen nee jël leen char de combat yi dox ci kaw Sénégalais yi dinañ jël char de dox ci kaw Sénégalais yi waaye loolu doyul mu nekkoon il faut ma am li tubaab bi wax arsenal juridique mooy il faut ma jël ay matuwaay ci yoon yoo xam ne dina ma jox doole goo xam ne ku sëqat sax mën naa la tëj te li ci gën a bëri mooy tëj la si sa giiru dund daat koy jaaral ci li ñuy wax terrorisme loolu moo mooy li am tey jii looloon war a mottali pexe yi nga xam ne Macky sal mu ngi koy pexe bu ci paree nag day jublu ci sénégal yi day jublu ci dal nit ñi waaw loolu duma ko wax fii parce que dafa concerner force vive de la nation bi yëpp ay stratégie la ay waxtaan la yoo xam ne mu ngi door a ñu ngi ci ñu ngi ci mais lu leer ba leer mooy Sénégal fi jóge ci ay conquête démocratique depuis avant indépendance ba léegi ku yaakaar ni mën nga xëy ci benn fan nga ne saxaw ko dangay ngay nax sa bopp. Mm-hmm. waaw ma njëkk leeral dara balaa may dugg ci loolu mooy gouvernement benn argument la am ci loi bi boo waxee dañ la naan loi bi andiwul lu bees daanaka waaw lu andiwul lu bees lu fi jara soppi foo soppi am rek mooy yokk nga wala wàññi nga nañu waxante dëgg rek loi 2016 bi loi bu ñu làqoon la sax ndax fii ñi fi nekk ci presse bi yëpp ana kan moo mun a ne moom xamoon na loi 2016 boobu c'est vrai dañ naan nul n'est censé ignorer laal loi waaye xam nañ loolu waxu picc la dañuy jaar ci suuf en catimini di boote ay loi yoo xam ne sénégalais duñu xam la ca ne may wax mbir mi ni ñaar la dafa am d'abord loi 2016 bi loi boobu dafa di loi bu anticonstitutionnelle dañ ko war a attaquer parce que loi boo xam ne dafay jël mbirum terrorisme ne ku manifester mu am débordement ci manifestation boobu terroriste nga euh, ku ku ku mer génn manifester ñu ne taal nañu ab bus parce que bien public la terroriste nga ba ci sax euh, ku sàcc ñu ne terroriste nga ñaar ñu jote xeex dara tuuru ci nañu ko yàlla ñu ne kii terroriste la loi boobu musiba la cim réew amul benn réew ci àdduna bu définir noonu terroriste xanaa mu doon réew yi nga xam ne ay dictature lañu waaye réew bu moderne bu démocratique amul ci àdduna donc ñu wax sénégalais yi ni loi 2016 boobu déjà moom musiba la woon te sénégalais yi xamuñu ko woon parce que député yi fi nekk sax xamuñu woon loi 2016 boobu te ñoom seen exposé des motifs bi pour loi bi visé ci loi 2016 loi 2018 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et nga loolu yëfu tappale la parce que loi booy modifié da ngay fàttali loi bi ko jiitu kon loi 2016 boobu la ñu waroon wax waaye boobu dañ ko doon nëbb muy benn waaye lan lañ ci yokk mooy ci code de procédure civile dañ ci yokk dooleel procureur ak juge ku wax procureur nag xam ni kii fi nekk di sëñ Bassirou Gueye li li mu yor déjà ci ci ci ci doole ñu jox ko ko musiba la parce que procureur Macky la daf fi nekk pour tëjal Macky ku ku Macky bëgg ñu tëj ko waaye nga dolli ko ay pouvoir yoo xam ne jokk yokk li ñuy wax pouvoir de confiscation mooy tey mun na nangul alalu ku ko neex te li loi bi njëkkoon wax sax ni dañuy nangu lenn ci alal gi parce que li ci des dañ koy bàyyi njaboot gi nee nañ léegi may nañ ko lépp mun na ko nangu ñaareel bi ñu ne may nañ leen ay pouvoir de perquisition yoo xam ne yu yu ëpp la mooy tey mun nañu débarquer kër ku ne saa su ne sans pour autant sax niñ ko doon defee mooy dafa war a am kooku dafa war a d'accord ci loolu mu ñëw débarquer fa à moment daal di perquisitionner kër gi ñu fouiller kër wëlbati say bagage naan dañuy seet ay preuve ñetteel bi ñu ne may nañ leen ñu mun a mettre sénégalais bu nekk sur écoute écoute yi nag ñun ñëpp xam nañ ni écoute yi am na ba noppi fi ne nii nag dañ ko dañ ko dañ ko bëgg a fësal nëbbatuñu mooy ku leen ku leen soob tey ñu ne diw mii njot nañ ni terroriste la daal lay mettre sur écoute looy wax ak sa soxna looy wax ak say xarit looy wax ak say sa avocat ñëpp ñu boole leen ci mbir mi ne dañ leen di déglu yooyu réew bu ñu bàyyi mu am fa musiba am na. président tamit euh, bàyyiwuñu xel ci acte nga xamante ne aussi euh, xam nga déedéet déedéet xam nga loolu mi ngi woon déjà ci code pénal bi acte de vandalisme yi mu ngi ci code pénal bi code pénal bi sanctionné na ko ba pare lan moo waral ñu bëgg ko jëlee foofu yóbbu ko ci terrorisme xam nga terrorisme mooy lan mooy ku jóge fële takk ay bombom ñëw claté ko ci kaw nit ñi parce que dafa ne nii nii la ñu war a doxale loolu mooy terrorisme mais revendication politique mun na jël forme bu ne mais su amee forme bu ëpp moo tax code pénal daal di prévoir des articles article 72 ba 84 article 84 ba et cetera ne lii appel à insurrection lii euh, nu mu tudd euh, euh, débordement yi am ci manifestation bu ne nag mu wax ni nii lañ ko war doxale lii mooy daan bi lan moo tax ñu bugg ko jëlee foofu ne dañ ko yóbbu ci terrorisme foog nga ni ku manifester étudiant bu manifester ko ne kontaanul mer génn baare yoon bi taal oto kooku terroriste la loolu mooy définition terroriste kon du ñun waxuñu impunité lu am rek am na lu ci yoon wax fi mu toll nii am na ay daan yu ci ban besoin la Macky am ba seet li nga xam ne tey mooy li gën a diis ci crime nga xam ne àdduna bi yëpp da koo ragal nga ne loolu léegi mooy terroriste ça veut dire que sénégalais bu ne tey terroriste la ki génn sax ki organiser tey sa gàmmu wala sa màggal ñaanuñu ko yàlla problème am fa ba ay nit jaxasoo nee nañ terroriste nga ndax dañu ne débordement bu am ci manifestation loolu est-ce que sénégalais war nañ koo nangu kon mbir mi du ay euh, euh, bëgguñu waxuñu impunité ci kenn lépp lu nit def te loolu jaarul yoon am na lu ci yoon wax ba noppi la ca bees mooy dañoo jël loolu yëpp nag ne léegi dañ koy dugal ci terrorisme mooy ku ko def yow ak benn Ben Laden yéen a yem yow ak euh, euh, euh, nu mu tudd état islamique yéen a yem yow ak yow ak yow ak est-ce que loolu yow mun nga ko nangu étudiant bi manifesté wala homme politique bi génn def rassemblement am kooku ak ñooñu ñoo yem loi bi moo tax dama ne opposition loi bi bu fi kenn toog sax naan da ngay def ay amendement ak ay parce que loolu danga nga leen di fulal loi bi dañ ko war a retirer projet bu bees bi bu ñu génnee ci loolu nag dañoo war a attaquer l'ancienne loi bi fi nekkoon ba pare bu 2016 dañ ko war a attaquer pour inconstitutionnalité parce que c'est une loi inconstitutionnelle loolu mooy wax ji ñun loolu la ñu ñëwoon euh, bokk ak opposition pour dolle leen malheureusement waxtu julli jamaa dem na waa xam nga forme terrorisme rek la xam nga assemblée bi damay wax sénégalais yi nii euh, boo gisee sama tànk néew ci assemblée bi ay at a ngi nii la ñuy dund ci assemblée ñu nag ñoom ñoo ko xam saaga yi xaste yi yooxoo yi waaye yooyu yëpp mën na jàll tanit ak nu mu tuut tuut kilifa lañ ci réew mi ndax ñu ne fii yëpp ci assemblée bi gëw ma ni am na ci ñaar ñett yoo xam ne tey am nañu mbébét ni 2024 bëgg nañu yor réew kon man mi am mbébét boobu te bëri sénégalais yoo xam ne xoole nañ mbébét yooyu dafa am lu ma war a moytu moo tax mun maa bàyyi mandat député bi parce que ñi ma wóolu ba bëgg ma ñëw assemblée jox nañ ma ko waaye mënu maa permettre sama bopp di ñëw assemblée ñu may provoqué wala ñu naan dañuy dal sama kaw muy mbir moo xam ne équilibre mooy ut la ñu bëri dañ naan Sonko bëriwul tànk assemblée waaye su ma duloon téye sama bopp fii ci assemblée bi parce que loolu seen pexe la dañu ne waa ji su ñëwee te ay ndigal yu ñu leen jox la bu ñëwee provoqué leen ko attaqué leen ko xeex leen moom bu ko defee sénégalais ne Sonko ngi xeex assemblée comme ça ngeen casser image am loolu nag boobu ba léegi ñu ngi koy moytu waaye loo gis am na fu fu mu yem tant que yaa ngi may xas yaa ngi may saaga yaa ngi may tib dinaa dinaa euh, tënk sama xol muñ ko waaye nga ñëw ne da nga may attaqué physiquement wax dëgg yàlla tolloogu ma foo xam ne gis naa góor yàlla goo xam ne ak noo munti toll di nga ñëw attaqué ma physiquement ma seetaan la comme ñoom nag recrutement nervi ak terroriste mooy seen spécialité kenn ci ñoom nga xam ne yàgg na maa menacé fu ne ñëw na tey essayé yàlla def na duma naa ko futti naa ko fekkewul sax as euh, séance bi loolu gënalu ma woon ni ma ko waxee nii waaye loolu message rek bu ñu leen di envoyé parce que monopole de la violence kenn yoru ko te fii ko fi laal mën na la def lu ëpp loolu kon ma seedeeloo Sénégalais yëpp nii. ñëw naa assemblée pour def sama liggéey ndax lii circonstance exceptionnelle la woon su du woon loolu man li may defee sama liggéey assemblée. mooy lu ma gisulul yoon dinaa bind gouvernement bi question écrite bu gouvernement bi tontoo ma woo presse bi ne askan wi lii moo fi am lii du yoon mais dama doon éviter di ñëw fii parce que li fi nekk ci député majorité euh, nite dafa nekkul ci ñoom la ci ëpp bokk ndax ñëw sa collègue di wax nga jóg di yuuxu di saaga di xaste loolu dafa rafetul mais loolu mooy mission bi ñu leen sant loolu yëpp nag ñu ngi koy muñ di ko muñ ngir yàlla di ko muñ ngir askan wi nga xam ne am na bët bu ñu xoolee waaye attaque physique moom du ma ko nangul kenn ci àdduna parce que yaram yaram dong la looloo fi xew ñu ngi koy jéggalu Sénégal yëpp waaye lu mun loon ñàkk la jërëjëf